jërë ngeen jëf ngir mën a lekk dañuy jël taabal teg ko ci kaw lal jël bool bi teg ci taxaw ci biir ndox mi tiim ko ngir lekk benn waay bu ñu naan Amadou Dia dëkk Tivaouane jeg saw muy nit li ci wax su populi coono ba muy dund ak waa këram ndax kur gi une année coono ak jafe-jafe yi muy dund nee na yemul foofee ne ñaari fan a ngi bu guddi jotee dañuy tegale ñaari lal am ñu ca yëg tëdd bu ñu nelawee ñaari waxtu ak lu teg dagg seeni nelaw wàcc may ñeneen ñi ñu mën a ngir nelaw vie Amadou Dia ne fi seenub coono gën a feeñe nag moo di bu ñu bëggee dem toilette ndax seen douche yëpp ndox mi nangu na ko les économies ñi inondation yi carton ak ñoo ngi wër ba léegi ndimbal lu ñu gisagul police bu caaroy dafa fees della ndox ba waral ñañu fa garde à dañu leen fa mujj jëlee yóbbu leen police bu Pikine léegi ko xamal ñu it ne Bassirou Sarr di xale lu góoru ñaar fukki ak juróom gi ñu fekkoon mu faatu ci tunnel bu train express régional bi autopsie ba ñu ko defal dëggal na ne dafa lab ci ndoxum taw mi moo ko tax a faatu l'observateur bind na càggante kilifa yu état bu Sénégal moo jur lii lépp ne li état ngir xeex waame gi ci dëkk bi tegoon ko ci loxoy agence de développement municipal ngir 2012 2019 ñu newoon ci defoon ci yitte doon jàlle deuxième phase bi kenn waxatu lu ca jëm li mu jur nag moo di dëkk bi taw na nit ñi taale ak di tëmbale téeméeri milliards ak ñeen fukk ak ñeent yu teg yi ñu ne woon dañu koy teg ngir plan décennal lutte contre les inondations xaalis boobee l'observateur nee nañu ba léegi kenn dekeese wu ko càggante gu jur li askan wi di dund fan yi ci réew mi yamul foofee la tribune bind na ne kuréel yu ci mel ni SILS ak ACMAD yëglu woon nañu ba wax ne ren dina bari ndox koy wax gouvernement bi joxuñu leen woon nopp bu bi journal la tribune dolli ñu ci ne doonte waan yu bare ci Sénégal fu ca mel ne Kees Kaolack Ndar Matam Ndakaaru ak Touba ndoxum taw mu bari mi sëkkatal askan wi moo leen jural mer mu réy mi ñu nekkee la Sénégal nañoo plan Orsec boobee ñu naan déclenché nañu ko ci réew mi Kër Massar moom gisu ci boppam plan Orsec bi ci point mort la taxawee ci Kër Massar kër ndem si yàlla Babacar Touré du Sud Quotidien xëy ab taxaw seetlu ci plan décennal lutte contre les inondations 2012 2022 li mu ci njëkk gis moo di Macky a bàkko gaaw a kañu yàkkamtee tëgali wàgg ba muy wax wax naan andi na fi pexe yuy tàggale réew mi ki inondation dem ci sax ba yokk boppam coow lu rëy ne am na ñu tàmbale yëkkati seen kàddu xaat di sàkku ay leeral ci fan ñu dugal koppar yi ñu nattoon ngir plan décennal bi président Macky Sall ay réalisation mu di li mu liggéey ci réew mi ci wàllu inondation jaroota lambu xool gis la ministre d'état secrétaire général de la présidence di Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ko wax ci xët mu njëkku soleil national moom président de la république di Macky mi ngi ñuy xibaar ne woote na ndajam daar daar di réunion d'urgence tey ji ci suba gi ca palais de la république Macky Sall muy ree ba ba ñi di feeñ photo baa ngi ci mu njëkk source wa yéenekaay bi xamal ñu ne natt bi ñuy def jëmee ko ci réew yi gën a taxawaay ci xeex coronavirus bi réewum Sénégal moo jël deuxième Macky Sall ak ñi mu àndal xerañ gu ñu wane ci xeex covid 19 gi moom la ñuy joobe sandarma yu section recherche koe bu joobe leen ne journal enquête xëy na dañu xamal ne benn waay bu ñu naan esñas nekkoon ci dëkk bi di fitnal góor ñi jigéen ñi ku ci nekk mu fexe ba am say photo yu jaaduwul di la santage def la esclave sexuel jël photo yooyu di ko jox site pornographie

yéeni kaay yi ñu àndoon moom Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yi ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye bokk na ci xibaar yi ngan goo xamante ni wala bokk euh, tànki nimmiku euh, ginnaaw waame gi def na ko ci Ndakaaru ak banlieue am démb ngir xoolal boppam jéey-jéeki tolluwaay askan wu ko doon xaar di wu sonn ci jaaxle buy xaar euh, ak taxawu moom jëwriñ ji dénk la dig lii di ay mesure ci lu jàmp muy saafara kon Euh, Covid 19 gi Kaolack ak fanu ci tollu ci ñaaxe gi comité développement sanitaire ya dañoo génn ca poste de santé wutali ci askan wa ci wàllu sensibilisation gi askan ci boppam nag moo tëwa jógandoor dóorandoor euh, préfet département ba rafetlu ko boobu ñàkkum engagement communautaire Sédhiou bag beek euh, lañu fa gisagum ne résultat dal xel lool ñii di waa l'école bi suñu ko méngaleeg résultat yi woon daaw Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalul jàmm ci këram tuuti émission daan ko coronavirus laata loolee ñu nuyu suñu xarit Abba. kelaj <laughs> maa ngi lay fay di eh, nuyu auditeurs yi Abdoulaye Diop ak Yacine Pouy maa ngi leen di eh, nuyu bu baax a baax a baax bàyyi xel ñi déglu RFM Elage eh, li xew ci corona gi. Abdoulaye kay la war a baxel nag dindi. waaw <laughs> jingal bi ci sa nopp yi. xam nga rek pare yenn saa <laughs> li ngay. xanaa ngelaw guddi gi du doy. mi ngay nekk élève xanaa da nga doon absenté. lu tax. da nga mën a absenté Abba. <laughs> yow waxa xam naa ne ku mënut absenté ba pare di ne toujours ci liste bavaar yi. non la moo tax nga wax loolu. gisoo ni ngay doxale nii. dama ne hélas. <laughs> comme fantôme ma jékki-jékki rek gis na sama wet toog naan ngi nuyu auditeurs nga wax naa la hélas waxaat la nee naa la. man damay liggéey ba trois heures du matin ca télé. trois heures du matin. ci télé ba. Hmm. enregistré yenn émission yi ba trois heures. tey jii euh, bu ma. waree xanaa du émission rek. ay émission rek la de da ngeen xolaat ki bi timing bi bu fekkee di leen wax fecc leen 5 minutes ngeen fecc 45 <laughs> minutes yaag bàyyi ñu ne fay charcuté ka dagg tam du ngeen fa fanaan <laughs> en tout cas daal euh, di kontaanaat euh, encore une fois <laughs> ci ñi nga xam ni ñoom la ñu euh, tënk li nga xam ne mooy suñu hmm. sant réew gis nga li ñu wax ni hmm, hmm. waaw am na solo macha allah macha allah moom kay ñaan yàlla rek mu gën a mu gën a jëm kanam lii ñu nekkee nii gën a jëm kanam ndax jaam bi ñaan la am aba ñaanoon nañ ko ci njëlbeen. Mm-hmm. naam àddina yëpp kenn rëccu ci mais gis nañ ni macha allah je touche du bois Sénégal. bien que nag tiisa ngi fii ay bakkan rot nañu. Mm-hmm. Mm-hmm. et cetera ndox mi tamit xam naa dañ koy ñaan rek moom subhaanahu wa mu mu wàcceel ñu li nu àttan te li ci des mu denceel ñu ko ba yeneen nawet. fiñ toll nii kay li hmm. ci des xam nga yàlla dégg na dégg na langue yëpp ma fiñ toll nii nañ wax liñ bëgg rek waaw mën na denc moom fiñ toll nii déedéet bu ngay ñaane waaw dañ koy ñaan rek fiñ toll nii ko nee mën na denc da nga dem sa kër rek mu nga ko sama borom yow mi nga xam yow rek yaay kenn <laughs> <laughs> xam mën dara umpul gi sew sew ci xol bi dara ci la de la de mhm. yow mi moom asamaan ak <laughs> bi ci gàttal moom ñëpp dimbalu rek ndox mi li def nga dencal ñu ko ba déwén. dëgg la parce que bu bu ñëwaatee ñëwaat du baax. El Hadj boo xoolee li xew ci eh, ay Kër Massar rek fenn ci banlieue yi mm, mm. eh, fenn nga. waay waay nga xam ne bu ñëwaatee du baax parce que depuis vendredi am na ñoo xam ne El ñu ngi ci seen i biir kër toog mënuñoo dem fenn man bi ma déggee ay femmes yu nekk enceinte ak yooyu. waay waay waay c'est-à-dire Abba moo tax gis nga toujours euh, ñu baal ma léeg-léeg dafay wax ji yëf yi day nuru day nuru bari wax. mais gis nga àddina bu ñu ci nekkee seq am penc il faut que ñu organiser ko c'est-à-dire ku la gën a organiser moo la gën a néew ay problème même dans le cadre du travail boo xoolee ci entreprise fu organisation dafay mel ni bu ñu doon football rek ci déggoo collectif lay doon cest à kenn du sonn da ngay jël jox abaa mu jox ki ku ne xam foo diw war a taxawee mais bu organisation amul ñëppay sonnandoor y a l'impression que ko ngaa yanu àddina fekk du loolu liggéey bee organisé wul liggéey bu organisé rek lépp dafay jaar ci yoon loolu nag ku ne am nga ci sa wàll dale ko ci état ba ci ki gën a suufee ci askan wi bu ñu nangoo ñun ñëpp nangu sa ce mot va toujours revenir samay wax parce que nit boo nanguwul am kilifa ñu xool penc bi naka lañ ci war a toogee contrôle gi aussi kilifa yi di ko def saa su ne bañ a tàyyi mais jàmm ji kenn mu ko am cent pour cent mais di nga am jàmm ci ni ñu dëkkee mais di nga xam nga li nit ñi dëkkee nii ah ay yoonu ndox yi ñin ñëw tabax fa baare ndox ma fa mu doon jaar moo wiiri dugg feneen et cetera yooyu yëpp ay doxalin rek doxalin yi daal lañu war a changer doxalin yi nañ am aba ak nangoo oyof gu ne ñun war nañoo xoolaat ni ñuy doxalee surtout fi àddina tollu léegi. corona bi buñ ci génnee ak jàmm ak salaam ku liggéeyul ci àddina di nga sonn lool mm-hmm. parce que nit ñi ku ne sa bopp nga tal. vaccin bii ngay dégg sax balaa nga ciy séddu da nga defee ni gars yi dañuy génnee vaccin danañ piquer seen i mbokk ak seen i xame ba pare jaay ko nag wut ca xaalis nag donc ku ne sa bopp nga tal la ci génne bu ñu bëggee émergence mooy li ma wax noonu organisation ak nangu kilifa yi moom li ñuy wax toujours mooy li ñuy wax rek ku ne kaay leen jox ma ma jiitu moom yërmande ci yow la war a mhm. muñ gi ci yow war mhm. ay xeer da nga koy <laughs> donc voilà il faut nga muñ muñ nag yombul mais il faut nga muñ avant ku jiitu Euh, il faut que nga muñ. élage euh, organisation la ñuy wax fii mu ngi am ndox fee ñuy wax ci ba tey ci kaaw corona gi ñii amatuñu xaalis wala sax fi ñu doon. Hmm. xëy di fa dem di wuti dañ leen fa wàññi donc élage euh, loolu organisation la wala lan la loolu loolu dañ leen soxla ndimbal ñooñu wala waxi organisation la ñuy wax. organisation kay mooy mooy xam nga organisation dafay tàmbale ci kaw jëm ci suuf dafa am junj doy na borom xel dof nag ngay waxal ba lépp egg ku ne xam nga fa nga féete ak la la ca war ndax def nga koom déet. ba pare nag loolu lépp ñu boole ko nas ko comme boo yee si caq tey buum boobu dajale lépp fédéré. Mhm. waaw mais na fekk per bu ne <laughs> nangoo toog bu per yëpp di telli telli doo ko a nas benn du dugg. ok organisation mooy day laaj xalaat euh, ku ci nekk indi xalaatam ak yooyu organiser yëf mais est-ce que. toll njiit tam gën a yërëm nit ñi njiit yërëm askan wi d'abord. xam nga est-ce que yëguñu a agir fi ñu toll nii. mais kooku moom mooy li ma wax démb na ne moyen bu mu laaj rek xam parfois nous nous donnons des exemples yoo xam ni c'est au niveau euh, euh, à la dimension de notre compréhension rek mais xam nga kilifa yi jiite ñoom ñoo la gën a xam yow da ngay wax li nga xalaat rek da wax li nga xalaat mooy que bu ñu xeep benn moyen na génn nañu gën a yërëm askan wi